tànnee ko jox ko julli ca la ngeen wax mu ñëw te gàmmu amul mu ne ma ma ne ko kan ana ban yonent mooy tudd mu ne ma yonent bi Muhammad la ma ne ko Muhammad dafa am juddu ndee ak baay mais Rasulullah est-ce que kenn jur na ko mu ne ma déedéet ma ne ko Rasulullah moo di yonent Muhammad moo de kañ ko joxoon yónni ko ca nangu nga wala nangu la mu ne an ma ne ko ngeen juum ci ne wal yonent walbateku ne mawlidu nabi wala waxuñ ko mu ne ah ma ne ko mawlidu nabi mu ne ah ma ne ko te nabi ak yonent du benn parce que nabi yàlla yónnewu ko kat mu ne ma lu tax ma ne ko yalla ak malaaka yi yéen li ngeen jàng moo de inna allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi yàllaa su jot ci nabi taxaw ci kaw nabi ne yaa si lazina amanu sallu alayhi kon nabi yàllaa ko hotel boppam Mohamed bi mu dikkee hootewul nabi parce que dafa war a gëm nabi dem su jooti ja ndax yaa si lazina amanu la ko yàlla wax képp ku gëm sallu alayhi kay su jot ci mu ne ma d'accord naa mu ne ko Mohamed gëm na yàlla mu ne gëm na yàlla mu ne ko kon su jot ci nabi war a def ci moom la ngay su jot du sa juddu mu ne waaw mu ko bañ dala gàmm ba léegi gisuma ñu anniversaire la Moustapha mu ne waaw ko ana juddu Moustapha moom mu ne ma mooy bisu gàmm ma ne ko du dëgg mu ne ma lu tax ma ne ko Moustapha ci la yàlla toogoon ba tocca ndàngam nga ne kuntu nekk fii de Moustapha de suma tànneef muxtasiyan te nëbbu man kenn kottumaa ko tiim lam oros kenn xamu ko moom xamoon na ko mën a mën a ko Moustapha namm na mu yàlla ko njëkk a dóor mu tëb leer ga jolli ñu tuddee ko rasul mu ne ma ne ko waaw Moustapha yàllaa ko njëkk a dóor duñ ko dóoree mu mel ni ballon kalaate leer ga jolli looloo tax leeru rasul lay ñëw kon Moustapha tànneef la mu ne waaw ma ko est ce que Mouhamed yàlla daf ko tànn mun naa ma ne ko bi mu ko tànnee daf ko seppi ci doomu aadama yi teg ko fële wala daf ko tànn dugal ci boppam wala daf ko tànn sànni mun naa ma ne ko tànn ngeen wax Mohamed su fekkee yàlla ko tànn daf ko tànn sànni wala daf ko tànn dugal ci boppam wala daf ko tànn yónni ko mu ne daf ko tànn yónni ko ma ne ko yónnent du wax Mohamed a wax wala yónnent ay wax mu ne ma yónnent bi wax ma ne ko rasulullah mustaqaala parce que amul lisaan mu ne ma yónneen te yàlla xaala ma ne ko waaw mu ne ma lu tax yàlla wax ma ne ko yàlla ngi waxee ci lisaanu muuriya li tax mu tànn jàmm bi nit ña waxtaanee ci lisaanul baraka loolaa barkeel laa ilaha illallah barkeel haqiqa barkeel tasawuf barkeel lu bawatu ba tax jàmm ñi nangu kàllaama bala waaye yàlla ci lisaanu muuriya la waxee moo tax mu ne allahuma yàlla nooru leer laa maa fi mu newoon ci sama biir samaaw ma yëkkati leer bi tey samaaw yëkkati googa ca la yàlla waxee asamaan moo tax yàlla tudd suuf moo tax yàlla tudd li maa bay na maa ci diggante kon tey gàmmu nit ñaa ko tuddee màggal juddug yonent te loolu du dëgg parce que ba muy am aadama amagul yónent ba muy am malaayika amagul kon ku judduwul naka la ñuy màggalee juddu te nit ñi ñëpp ci daal xam nga dañ jaawale affaire allin dafa laal leer bi ne raaytu rabbi bi xay ne qalbi laa sàkka anta anta mu ne man gis naa sama borom bii la mu nekk xëy ni teg naa ci sama bët xal bii te fas naa ko ci sama xol laa sàkka dootul mën a ñàkk anta anta ku ma xoolati xam naa ne da nga ko war mu naa mën a dañ koy màggal waaye foo koy màggale mooy kara ba nga àkkee say xumu rabbin ba ba mu yar sa ruugi avant mu koy jébal yàlla yow fam la teg bëgg laay jébal yàlla sa foofu ngaa yégée ne yow rasul nga parce que sa xel ma leer na sa gis-gis ba leer na sa dégg-dégg ba leer na sa nangu ga leer na la sa topp ga leer na la sa pas ba leer na la sa jaayante leer na foofu la rasulullah yopp moo tax Serigne Touba bi mu dikkee mun naa ana xaadimu rasulillah waaw lu tax sëñ Bamba am gàmm alaaji ne yónnent la lu tax alaaji Malick amul gàmm limaamu laay ne aji boo def yàlla inni rasulullah ilaykum te amul gàmm lu tax Aysa amul gàmm lu tax Daawuda amul gàmm lu tax aadama amul gàmm Sénégal dikk bëgg a def juddug yonent la ñuy gàmm te kooko laaj borom xam-xam yi ne Sénégal kenn xamul yonent ñoom ñëpp nag laa wax ñu danañ ma dégg de Sénégal laa wax képp ku fay yeexoo xamoo yonent man njàmme daaru maa ko wax dem leen lijjanti ji yónnent ba xam ko xam fan laay juddu ci nit ak fan la ko yàlla ambu ba mat ni doom de matee ak fan la juddoo parce que doom ju ne balaa mooy juddu dañ ko ambu lan moo ambu rasulillah maa ngi koy laaj borom xam-xam Sénégal ku ko xam kaay ñu ñëw dellu daanooti fekkee dañ naan xaala rasulillah wala de waaw leer naka laay waxee kon Mouhamed moom waxagul ba tey ndax xaala Mouhamed moom dégguma ko yónnante bee wax rek te Mouhamed dañ koo yónni lañ ko yónni su dee wax ki yónni te waxul nu yónnante da doxee ah ñu yónni la ci bitig bi nga jël cent franc def ci sa poche mu war a jar ataaya nga ñëw ne xuj yow mi yónni ne doo wax saafara bi du mos a wax jaay ma wala de yow mi ko jox te ka nga jëm xamagut gan njëg nga yor yaa koy génne ne ko jaay ma moo xam njëg gi nga yor loolu la leen rasulaay bi jëriñ kon mbokk yi nañ dellu defere suñ ngëm te xoolal gis nga lu mu bëri bëri lu coow li bëri bëri makka duñ gàmm Medina duñ da gàmm kon ñun lu tax ñu da ko def dëgëral suñ ngëm loolu la wax de dëgëral suñ ngëm waaye ngëm goo xam ne soo koy dëgëral ci lëndëm nga koy dëgëral ak réer mbaa da nga am yàlla yàlla ne la man leer la nga ne dëgëral loo xam ne leeru la est-ce que dana la génn moo tax yàlla def noonu tujjadidu imaanukum beesal leen seen gëm ñu xool jullit yi xamul fenn fu yàlla wax ne beesal leen julli nañ ma ko indil xamul fu yàlla wax ne nañ beesal koor aj makka amul beesal jàngaan quran amul beesal takk say amul beesal sang farata amul beesal mais tujjadidu imaanukum la wax beesal leen seen gëm te pourtant yàlla ba mu akki yónnante daf ko ne balaay nangu balaa ma laay nangul sa mbaax yow nga jox ma li nga gën a bëgg xoolal yàlla ni mu yërëmee nit ñi ak ni mu bëggee nit ñi xam jox ma li nga gën a bëgg <laughs> nit na xool lu gën a bëgg du boppam du wexu tànkam du loxoom du baaraam du nopp du biir du dara dama la hôpital soo demee xam ne nit boppam lam doon na gën a bëgg waaye fañ ko wàccee dafa ànd ak moom rek heure bu càkko conde mu war waaw waaw daggal ma suma tànk bi war na est-ce que kon boobu boobu la nit ñi gën a gëm xanaa ki ko dagg lu du nit kon nit gëmu cëram nit boppam la gën a bëgg yàlla ne balaa ma ne nangul sa mbaax nga jox ma sa bopp lu tax duñ jël suñ bopp jox ko yàlla nit ñi bëgg a toog ci lan ngëm goo xam ne parce que diinaay Sénégal dafa métti li Serigne Touba waxoon nag am na nit ñi gëm nañ yàlla waaye wóoluwuñ ko lii la Bamba bind mu ne ëllëg ngëm gi dana yàqu ñu ne lu tax parce que nit ñi gëm nañ yàlla waaye wóoluwuñ yàlla te looloo fi ne dangaay gis ku ne gëm naa yàlla bay daw gu dégg ba ca te barke laa ilaha illallah wóoluwu ko barke Cheikh Rafaal ku wóolu yàlla danga des ci dëgg moo gëm mooy dëgg ku wóolu sa bopp danga dem desi ci xam-xam mooy dëgg ku wóolu sa ruu da des ci si ruu moo am képp ku wóolu sa feeñuwaay danga nga des ci xaqiqa képp ku bëgg wóolu sa kowe danga nga dem seeti tasawuf bu wér képp ku bëgg wóolu sa jotaay amal rasulillah wala foo toog wóolu ko kon axlu badar loolu laa taxañ def ko ci yéen ngeen wóolu ko mooy dëgg bu wér kon bàyyilu yow rek yaa am gàmmu nag gis nga su doonaloo nag sa tante si yàlla dana rus diina rus Muhammed rus rasulilaay rus Moustapha moom du ko fekkee mooy dëgg de nabi du ñëw mooy dëgg waaw ma ma ma <laughs> laa ilaha illallah doy na waar ah ndeysaan dafa am benn borom xam-xam démb dama ko dëpp moo tëb rek taxaw ci alxuraan ne ma gëm nga ko ma ne ko gëmuma ko mu ne ma xam ah, ma ne ko mu ne ma alxuraan da wax yàlla ma ne ko alxuraan dama lay laaj fu mu dalee ak fu mu yëpp fan la tàmbalee mu ne tekk ba ca kanam mu ne nga ne ma ko alquran fan la tàmbali mu ne tax nga dama ko laaj ma ne ko xanaa waxu len wax yàlla mu ne ko yàlla kañ na dara wax wala wax ya passé won mom dal quran te yéen yéen tugal sen bop ne kàddu yàlla alquran la wax yàlla bal kañ lima len da wax waxu yàlla alquran la kañ la yàlla dala wax kon ana alquran booba boo moom bokul yàlla dik ba ci ci ñun xam ne tiim nañ baqara te njëriñal naas la mu ne alquran fii ñu bind baqara la ak naas booba la ñu gëlëmal wax yàlla du baqara du naas parce que nit yàlla dafa wax ak moom lu tax ñu ne ba alquran bii ñu tiim baqara la ak naas yi baqara nag la yàllaa ko bind jagleel ko naas muy tiraangam loolu du waxat laa wax naasi yàllaa ko bind ne ko bind ma la lu dul nga jaamu ma loolu du waxam kon nit du waxam lu tax ñu ne kaamil bi baqara la ak naasi kon wax yàlla ñaar kott la baqara ak naasi <laughs> Sénégal jàngaguñu alquran boobu de kenn jàngagut fi baqara kenn jàngagu fi naasi ku ko jàng kaay man laaj la baqara ñaata aaya la naasi ñaata aaya la ñaata kon bàyyi lum soo gisee mën na la yaa am tey gàmmo yow rek a ko defal rasulillah man maa la ko wax te maa ko wax ci àdduna bi ku ko weddi kaaj ku dikk toog fii rek ne ko lan mooy rasulillah su ko xamul rek gàmmu su ne la Muhammad rek gàmmu daanu na te Muhammad ak rasulullah du benn bàyyi lum rasulullah njëkk a tabbi ci sa nopp bi yàlla ne la allahumma yàlla noonu leer naa waaye sàmmi dégg ma rasulullaay wàcc ci sa bët bi ca seexu mu rabbin ba mu ne la allahuma yàlla sa basirun gis kon tey nit ñi dañuy jaawale noorul xulóob ak nooru rasulillah képp ku bëgg a jaamu yàlla dangay am noorul xulóob moo tax yàlla ne xam ma door maa jaamu soo ma xamul ko waaye ku bëgg a topp yàlla dangay am rasulillah moo am tey ah nañ seet këri diina yi bëri na ñoo xam ne tey ñemewuñ koy def wala déet lu tax ñemewuñ koy def seen moromu jaam te nag xam nañ gàcce nag xam nga lu tax na nañ corona bi arrêté na yéen waa Badar jommi wulee na feebar buñ laas peer wutal ko ay vagues yu bari wala tooga billaay ba mooy départ laa leen dem mujj ga dañuy toog ba ca kanam rek ñu ne jeex na parce que wéeruñ ko fen wax waxuñ ne jeex wa waaw léegi nag ana réew mi lu tax kaaraange ñi ko yoroon feebar bi ñoo xam ne wérul te dana jeex ñu nag ci peuple bi da leen laaj xaalis de duma te ñu nekk kaaraangay peuple loolu fan lañ ko teg dangaa ñëw ñàkk a tàkk masque ñu alamaan la dóor la te teguñ ko fet xanaa yaa gën a bëgg nit ñi ba nit ki bakkanam bi ah bila moo tax ba ma ba ma leen sampalee pion foofa la daw ab diir ma xam ne affaire bii zëla dëgg la di billaahi wallaahi tallaahi su doon loo xam ne intérieurement la lu wér la nit toog ci àdduna ne kaay leen ma feget ko ci juróom-ñaari fan war nañoo mën a nangu su fekkee peuple bi jaral na leen mooy dëgg parce que lama leen waxoon dara dañu ci amul kenn ku dégg badrin bu mu daal wala de dana leen jeex waaw léegi laaj leen corona bi bi mu jeex fan la jeexee <laughs> listi si moor lañ defal rek te pourtant nit ñaa ngee deebate te li ngaa gis nii nit ñi dañuy continuer de dee xanaa bi da rey moom bu njëkk ak bi da rey léegi ak bi da rey gannaaw suba bi da rey ba déwén xanaa boobu boobu du corona boobu corona wii la du fi jot mu ngee kor wii bi da dammete rek kenn mënu ci tos balaa ñooy juddu corona wii am na fi lañ ko fekk fi lañ koy ba kon nañ uti yàlla mbokk yi te bañ topp lu ñu jëriñ Mouhamed deful gàmmu saaba yi defuñ ko Makka defuñ ko Medina defuñ ko pourquoi ñu koy def lu tax pourtant senegal xam nañ li tax ñu de ko def fii de moom sëñ Bamba ku fee roogi roogi naan yaa ngi koy sam feni kese billahi wallahi tallahi Serigne Touba jàpp nañ ko juróom-ñaari at kenn gàmmu ko nanguwuñ ko wala kenn ñemeku ko gis nga dafa am mbir moo xam ne dafa jot nit ñi wax ko nit ñi doomi haram lañ wala doomi golo billahi doomi golo lañ parce que ki def loolu dem nekkoo ak yow mu dem nga jël jaamu yàlla teg fële ne dootoo ko def mu wàññeeku dikki dekkal ko nga ne yaa moom fan lañ ko teg yow di abla xamati dara waaye nag yi moom xama fu baqara jógee waaye dama dee ba sol poto lampe boo gis ñun fa xeew baqara démb dama gis ba ñu xeew ci poto bi mu ngi sëgg rek naan nii ma xool bi jën yi xool poto bi xool bopp bi xool nopp ya ma xoolal yàlla ne la kenn la ñëwal su jot ci man nga lànk mu ne la dégg ma nga bañ mu ne la taxalaa yow ku war a koy nga nga bañ moo la ci kennam ki nga bañ bañ jàpp la nga nekk ci alquran ñu jàpp la xacc la ba ci poto lampe bi mu jox la liifu yàlla ñu jël ba jëli sëcc nga sëgg dootoo jëlee leer foofu waaw waaw aslantu nafsi li moor pas aslantu nafsi lillahi rabbil alamin aslantu nafsi li moor dee nga waaw léegi alquran nag suñ demee ba de ko rendi de ko yàpp ah weesu na waar di tool la weesu na tool foore la weesu na réew la weesu na réew àdduna la fu nit ñi jëm kon mbokk yi waa Ahlu Badar ñun Cheikh Ibra daf ñu dimbale ci lan màggal dëgg moo tax mu andil ñu laa ilaha illallah la yónnent ne moo gën ci ñi njëkk moo gën ci moom te moo njëkk te moo de mucc loolu la ñu Cheikh jox ngir mu màggal ñu gis nga rasulilaay duñ ko màggal danga caay màggee waaw parce que rasulilaay daay judd ci dafay ñëw judd ci nag sunu ma ina mooy dëgg nu fa watu daay ñëw judd ci uli albaab mu yëg ko sa ruugi sa ruugi fas ko ci xutsim xut si fas ko ci sekkare dëgg sekkare dëgg fas ko ci sekkare taw yi sekkare taw yi ñëw fasu ci siru naa si nga door a mën a wéetal billahi wallahi tallahi ndax nit manta weetal yàlla te secret yooyu tàbbi wuñ ci moom maam kon nañ xam li ñu andi lan la mooy lan mooy laa ilaha illallah ak secret bi na ko nit ñu wuti li ñoo def wóor a ah, acca kan kan moo koy def tey nañ ma ko wax tey kan moo dem màggal guddug yónent bi xam nga lu tax du ko màggal parce que suñ defee tànt ba pare duñ fa wax dara yonent ay buxaar yu noon na waroon na ca mbaam ma yow leer dana war ci mbaam ay ay yow leer am na gémmiñ ba Halimatu Saadiya da ko nampal ñu dikk naan mbaam ma mbaam ma Halimatu Saadiya waroon ñu ne njëg gi moo gën a yooy ñu ne xabal nit ñi yoo naan ba mu yeggee ca mbaam mbaam ma dafa tëb rek suur mbut dem raw mbaam yëpp waa ji wax ko ma ne ko waaw waaw moom xanaa li mu yeggee ci mbaam mu suur mbut ma koo na yeggee ci xam boobu ba doon doon ba dee yow Mouhamed faqir la ba dee dem yegg ci mbaamu jàmbur mu suur ah ah, ah. waaw mbaam ma suur ñu ne ba raw ca njëgg ma laa <laughs> ilaha illallah kon nañ bokk sant yàlla te delluwaat ci laa ilaha illallah nañ delluwaat ci baatu laa ilaha illallah te xam ne gàmmo su fekkee am na ku ko moom ci àdduna Serigne Touba ko moom fii ci Sénégal moom kenn moomu ku dul Serigne Touba moomoo fi gàmm moo ku ko weddi andil sa Serigne. juróom-ñaari ati Serigne Touba yi dem ne muux jàngut alxuraan gàmmahut julliw ñu tëj jàkka yi tëj jumaa yi wala xise waxul la juróom-ñaari at ak lu kon tey corona bi lim bi dem defoon nañ ko bu njëkk pourtant corona bee tan parce que corona bi moom dañ ne feebar la waaye est bu njëkk bañ koy def feebar jeex na waaye feebar la nag bàyyi lu xam nga lu tax. bañ leen ko tere feebaru fen la ci seen ngëm feebaru fen la ci seen xol ca bu njëkk ba feebaru fen la woon ak ñàkk wul bu wet muy wérat sëriñ Touba ak dëgg ak wul mu ñëwee lu wet dëggalaat ko yëkkatiwaat ko ba ñëpp jotaat ci fey da ko lacc lacc te Serigne Touba lépp lu moom Cheikh Rafa la tax mu am ko lii xëy dëkk nag Serigne Touba maa ko wax de lu mu ponkal ponkal ponkal ponkalam ngan ne ko gën a ponkal mooy ki ko ñëw ne ko cas yëkkati ko ba àddina de ko seen gis nga su doonoon ak Cheikh Rafal yàlla sax du seen sëñ Bamba kon yàlla du ko gis bu bet balaa Cheikh Rafal da ñëw wax na ana xaadimu rasulillah balaa Cheikh Rafal da ñëw wax na asbiyallahu daxran wa laa ilaha illallah bi Cheikh Rafal de agsi wax na ne ay na muridu laa booba ku Sëriñ Tuubaa yóbbu ci yàlla بابا سرين تبا هوتي وجمي تي يالا سيان رفالة تغم هوتي جمي تي يالا أين مريد الله سيان رفالة ماي سرين تبا موي دك كان يان كنا جاروكو با حد دا قيد بين نفر يالا سخم سيان رفالة تنك باسكا يالا قدر رقا بس يعرف على سرين تبا رقا لنجا كتاني dañoo dajee ruqaa ne cas naawalante ba ca kaw Cheikh Rafal dikk ne baraas ci ruu Cheikh Serigne Touba Serigne Touba ne baraas ci xolu Cheikh Rafal Cheikh Rafal naan ruu Serigne Touba ba mandi Serigne Touba téye xolu Cheikh Ibrahima Fall wóolu ko looloo andi ay na muridu laay looloo muridina ku namm ci dëgg bu wépp kon mbokki axlu badar gis nga lii ngeen yëg muy laa ilaha illallah bu leen ci marché arrière addina bi gëlëm na nit ñi gëlëm nañ suuf gëlëm na ndox gëlëm na ngelaw gëlëm na bis gëlëm na jant gëlëm na weer gëlëm na barke laa ilaha illallah addina bi lépp gëlëm kudul badrien gindeeku la loolu maa ko wax kudul badrien amoo gindeeku barke laa ilaha illallah loo mën a téye du dëgg kon ñun suñ demee ba ji ñu ne ñun ñoo de laa ilaha illa faqat nañ ko nangu nañ ko nangu te dund ko lii hay dëgg ndax moo ñuy jëriñ fii moo ñuy jëriñ feneen duut fañ jëm de jëmatuñ fenn jëmuwaay bi tawhidu illaahi yàlla taxàgg nañ fa ku fi ba tawhid jëm feneen taal mooy dëgg ku fi bëgg a jeex ci leneen lu dul dëgg ñàkk nga kon nañ jeex ci dëgg jeex ci dëgg moo gën jeex ci yàlla yàlla da jeex ci dëgg sa dund bi tappe ak dund yàlla nga mën a matal yàlla kon nañ bokk jeex ci dëgg jeex nañ ci nag moo tax bi ma ñëwee ma ne leen dama leen bége parce que ndeysaan démb ci guddi ndaje mi nii la ma ko yàlla wane billaa wallaay tallaay barke laa ilaha illallah nii la ma yàlla wane ndaje mi mboolem rijaan mboolem bu saman dama dikk fekk ko ci seen biir yéen ku ne ngi toog de tumbi ma ne leen lu ngeen de wër ñu ne dëgg billaay wallaay tallaay wër nañ ko fu ne mais fii rek la ñu waxee moo tax bi ma leen di jib aal bi ngeen def daf ma daf ma daf ma yóbbu fu sori parce que lii xuus naa ko bu yàgg barke laa ilaa dama wax déeb biig rek pour mu gën leen a jege mais lii quatre-vingt-quatre ndaje mi quatre-vingt-quatre laa ko puus barke xaadimu rasulaay su dul dëgg yàlla bu leen ma gisee suñu jotaay bi quatre-vingt-quatre laa ko puus oh ñambe borom daaru kon de xam naa su yeboo tëj ko rek la ilaha illallah jërëjëf quatre-vingt luñ koy binde huit ak zéro moo tax ñu de tol ci jàmm yàlla parce que moo tax ñu de juddu ëmb la juróom-ñetti weer juróom ñentel ba nga kay nga ñëpp muy 8 ak ser fa la yem di ser da nga juddu de mbaa ñu wax ci yow waaye huit mois so na yaa ngaa juddu ñu joy parce que dañu xamne da nga dé waaye su sero ba da ci génn de par force pas la force parce que sero bi nga jëma tam suuf si nga taxaw yépp sero la waaw suuf si nga taxaw sero la waaw bu wér acca mala yé fi ne ak garab yi ak ndox mi ak jëmmi doomu aadama muy lan muy ka demal ca asamaan sa jant baa fa nekk ak weer wa ak biddiw ba ak leer ya ñuy jëriñ muy lan muy ka déwit wala ne sero ba moo de dund kiñ bokk xalaqa min nafsin waahidatin kulluhu xanaa gisuñ sero ay ku ca dëppwut laa ilaha illallah kon mbokk yi nañ nañ nañ nañ delloo suñu bopp ci yàlla kon ñun lépp lu ñu wax rek billaay wa ndeysaan soo amul preuve rek doy na waar billaay wallaay tallaay lii quatre-vingt-quatre laa ko xoos booba man ci laxasaay tàngooru métti barke laa ilaha illallah bàyyi lu booba booba doy booba jinne yi ak malaayika yi ñoo ma gën a engagé ci nit man tabarka laa ilaha illallah li may wax ni dëgg la tey non dëgg la tey bi may ñëw tey tey tey bi may ñëw ci oto bi oh, dama toog ba sa kanam ma ne Baye Serigne Mbaye sow na xadi ma waxtaan ba noppi ñu ne cell ne xujji bu ne ne xujj yoori la parce que la may wax kenn xamu ko ñu wax ma ne leen gaa yi a jógee ca Océantique ba ñoo ma ne ma foo jëm ma de wax ak ñoom ñu leen mbuur laa jëm bañ laaj ma kan ak nga nekkat ci oto bi ma ne ko jëwrin Mbaye soxna Xadi oh, oh, Baye Serif billaay wallaay laajal Baye Mbaye ma ne ko lii ku ko teewee doo gëm ne Serigne am na taalibe jinne ah am ana mbaay dëgg la xanaa duma fenn sama kanam doom ji xanaa ma ne ko ma ne leen damaa am lu ma leen wan gis nga ñooñu fu badriye teew gis nañ ko te billaay wallaahi dañ leen bëgg barke Cheikh Rafa te bi may woo dam daf ma ne ca Océantique balaa ne te daf ma woo booba man ci oto bi ñu waxtaan ab diir barke Cheikh la Fall foo jëm ma ne mbuur te bañ may wan fañ toog kasa fa ne quatre-vingt-quatre laa gis ndaje mi quatre moom a ci woo ne ma am na quatre yu war a jël laa ilaha illallah billaay wallahi tallaay barke Cheikh Ibrahima Fall du ma jinne na nit njaay la kon nit Fall la waaw wala nit kenn laa boobu dëgg la ma kon waa ahlu badar nañ sant yàlla billaay wallahi tallaay maa ngi leen di wax bégee leen gis nga li ngeen xam kenn amu ko ci kaw suuf te kenn dootu ko am gis nga yalla tej na bu wet yalla kam doon xaar mom ñoo paré na te yene ci dal ndax dañ non Mahdi moy tej jamono te jamono tej ko jot na parce que ñëpp luppe nañ bañ akhlu baral kon mbokk yi li ngeen am di leen ko toog di ci di ci fikra bay ku dugg dara jang tok ci xam-xam bo xamne yonent du ko toxal ken du ko toxal est-ce que yene ngay xalaat fi ngeen de tok est-ce que yéen a bi di génne ci te da nga gis taalibe boo xam ne dana toog ay weer duma teg bët te barke laa ilaha illa bis bu mu fëggee day mel ni sang seex a toog jonkoon ci bi laa ilaha illallah day dem ba tëdd sax ne ah li ma doon lukkee tey naka la sax su ko defee ma ne la eh crédit la root ci naa dama bëgg nga noppalu ma rocci piis bi nga ne këndëg nelaw ba xalangu nag ma jël sama piis leem nga de nelaw a nelaw nelaw ba de xiixat ma yoot la yoot yoot ba agsi tiim la fi nga ne danaa leen de tiim su ngeen de nelaw de am na ci ñoo xam ne su ñooy nelaw di ñooy nelaw ñoo de raw kolokoo di dangay nelaw ba ma fekk la fa jël sa kurus tegal la ci sa dënn bi wala ma tegal la ko ci sa nelaw a tiim la ko góor waaw hubbi sa xutsi bi ba pare roofal la ca bataaxelu xam-xam nga génn dox ci diggante fi ak marché nit kar la nga ne sang seex na taal ko yàlla di kandul bi na xam naamul xaali mo afdalu min hebadatil jaayi ci laa leen teg kuy nelaw ma rof ci yow xam-xam ku man li matoo góor yàlla kon moo tax ma ne xam-xam bu leen ko gis nga man xam nga nit ñi dañ da wax naan ay fikra yàlla ay xalaat man mosumaay xalaat xam-xam mosumaay xalaat leer mosumaay xalaat ci dara dara dara man awma xalaat man dund laa xam dund barke la man mosumaay xalaat du àddina du àllaaxira du biir du yàlla du yónnent du xam-xam du leer du secret man fi ma toog laa toog lu ma soxla moom may fekk si bu wér kon téye leen ñu laa ilaha illallah kenn ku ci ne sa xel bu mu jóg ci sa secret kan mooy sa secret borom daaru bu wér su doonaloon ak borom daaru witti ngeen de dox ba xëy dee perta kenn ku ci ne duy nga ba diis te saayir balaa baax am baati mooy dëgg yaram kon baati nun nañ ci yéen fii ak fañ jëm li maay wax ñun jaamu yàlla gi sax nañ ko te téye la tawhidu ilaahi jaamu yàlla ak tawhid du benn xanaa ni ñi duñ jaamu yàlla ah waaw lu tax doo jaamu yàlla ba pare wëlbate ko dina yaa ngaa jaamu jaar yàlla boo koy boo ko jaamoo ji jaamu yàlla day wuti taw yi déggu leen ma de jaamu yàlla day wuti taw yi te nit jaamu yàlla la yow ni ñu xujjural fii loo wax ñu naan nit ñi nañ jaamu yàlla yow man ngay doon sa boppa doo dem wuti taw yi te yàlla ne la taw yi la laaj yàlla su laajoon jaamu ñàkk xam nga nit ñi daan naan yàlla daf ne bind ma nit ak jinne ilaa li yax bu doon ñu ne yax bu doon nii ko waxul benn ilaa li yax bu doon ilaa foo nii la wax jëmal fa nga jëm soo demee xam ma lii la wax kon nañ bokk dellu ci yàlla kon ñu ngi leen da wax jaageen jëf santati nañ gërëmati nañ di leen wax ne fekkee ay déwén ci barket ay tangeen ngeen ko fekkee di <laughs> laa ilaha ñii xam naa dama koy bañ a ngeen fuuy waaye li ngay gis nii dee di ko budde dama bëgg ngeen kamal te ko dee defar bëgg mu kamal da ko téyel dundam bam kamal seen dund yëpp dama ko téye mboolem dund badri ma ko téye te gis nga bi ma ne dajalee dund badri yëpp ba téye ko xam nga nu ma mel dafa melni ni xobu mariage mariage ma téye ko ci suma loxo gis nga nim mu xoyo fii seen ruu yëpp laa poñu téye ko te li mu xobu mariage a ko gëna a gis ci man man moo tax kenn du ma ci su diisoon rek rëcc ma mais dama ko tàggat tàggat tàggat tàggat tàggat ba mu oyof taaw ma poñe yëpp yi moo tax li bu kenn beew dee leen ma laa ilaha illallah waaw maam ñu nag yéen ba ca yàlla ñu nag yéen ba tawhidu ilahiya ñu nag yéen ba wax da walaa sarika lahu ñu nag yéen ba damma hayaati li hayaati laa waaye ku ci jamaa ja nag man ma bala yéen waa am ahlu badar ku ci toog da xalaat ne sa jaamu gi ajjana nga ca bëgg ñàkk nga mooy dëgg gis nga ku de képp ku de rijaalu laay soo xalaatee safara dof nga te ki boolee dof ñàkk du gañe fii du gañe fa njëm moo tax Cheikh Fall sëriñ Serigne Bamba jaamuhuma yàlla ngir ragal safara mais jaamuhuma yàlla ngir ajjana mu ne ko lan mu ne damay jaamu yàlla ngir yàlla te ñun ci koob lañ bokk ñun la wax ñun ci koku lañ bop kon kep ku kep ku sax suñu sax suñu wénu nuur ya soo ko muucoo xamal ne ruu sex rafaal nga nam moy deug yeen ñep ruu cheikh rafal ngeen nam kon mandi len ci dëgg mandi len ci xam-xam dal len ci leer suko defé na ngeen ngeen wàññeeku ñew ci biti am comportement personnalité dignité parce que yena wara ré a ree gis nga signé rek <laughs> mais quel rew ñëpp a tiit sëdd leen sëdd balaa reer dafa dee wanaa dëgg di sëdd balaa reer dee yaa booy balaa mooy wanent dafa dee yaa booy laa wax jën bi ñuy wax yaa su dee laay door a pali xam nga wanent wanent ay demal geen xool rek yaa fee deewut du wanent sëdd fee deewut du reer parce que kon nañ bokk dellu ci laa ilaha illallah nañ bokk delluwaat ci baat boobu ni ma koy waxee nañ xalaat li nga ci ñun gis nga yàlla yàlla laa wax de lam njëkk fëgg ci ñun maa ngi ko doon wax keroog ma ne doom aadama kat moom mos a gis noppam nit bu dee yëngatu maa ngi leen koy laaj nopp bu yëngatu ku ko am nit ñee doomi golo mbaam sax dana poto poto nopp ya nag def ko keneen def ko nit na foto foto noppam waaw lu tax yàlla ne ko teg ci rax suuf ci bopp takkal ko ci bëtu buuse acca nopp bu yëngatu ku ko di nañ ma ko wat bu yëg ñu ñaam problème acca waaw léegi kan moo mos a dégg bruit karaw xanaa du mbooloo xanaa dajewul waaw lu tax du def bruit foofu laa koy tënk nag dem leen liggéey ci karaw du def bruit nopp du yëngatu lu tax gaa yi laa ilaha illallah jalla jalaaluhu wa asal kamala looloo tax duñ yëngatu màggu yàlla amul yëngatu mat ak yàlla amul yëngatu mm-hmm. taxul na ngeen seeti ko ca noppee waxuma loolu bu leen ko dana fi gën a gaaw nag xam bàyyi jëwriñ ci kalam baa ngay tàng waaye loolu bokkut ak li ma leen de nopp du yëngatu karaw du def bruit pourquoi il y a des questions dansées une fois réponse pas réponse la le le le nu nous tubaab ba waxee laam rek par réponse de laam réponse de vie là une fois ngeen dugg ci seen dund bi tontu fa seen bopp wari len ko xol du yëngu nopp du yëngu karaw du def bruit aca mooy dëgg waaw léegi kan moo fi nooyi lu saf suukar day <laughs> ngeen dee <laughs> bakkan du yëg caf ka te pourtant moo dee dund li togge waaw lu tax du yëg caf ka waaw loolu dañ ko def ci bu ko dugal ci affaire tee leen ko waaye su leen neexee sax dugal leen maa ko wax ku ko weddi kaaj bu wér kon ñu ngi leen di wax jaageen jëf bàyyi lum guddal fan te wér na la ko yàlla defal defal la kaaraange ñu xam ne jëmm ji tey lu axlu badar am mbuur moom la nañ delloo naar bi xorom si loo ahlu badar am buur jëmm ji ndax moo fatoon bàyyi jëwri bu attan ko lool yaatal ko xam-xam bi fii la déparé moo tax bi lii amee ma ne danaa ko fekkee si su dee benn yoon it danaa ñëw fekkees ko parce que gor-gor la li ma wax taalibe du ma ëpp kóllëre du ma ëpp ngor ci àdduna kon ma dee billaa wallaahi wa taalaay bu kon ñun ñëpp nañ xam ne kilifa la jàmbaar la xarekat la ku xam hitte la ku dëgër la ku toog la ku gëm lim nekk la parce que lii déparé ne ci kër baay ju la jur mu génne la li ma leen da wax xam ngeen ko départ na yaay ji la jur bañ la li ma la xam nañ ko te tey kër gi bi mu accès yaay bañut baay dàqut ba mu jolli tey ba dañ buur kon gàcci ngalaama yal na yàlla fay la gërëm nañ la nag tey yow bàyyi lum foofu laa koy tënk gërëm nañ sa ruu gërëm nañ sa tey gërëm nañ sa ëllëg bàyyi lum gërëm nañ sa saayir gërëm sa baatin wàccee nañ la saayiratan wa baatinatan xaqlan wa qalban wa nafsan wa ruuxan wa jisman wa maatan wa xayaatan ñun ñoo wax loolu wàccee nañ la ci lépp bàyyi lum wàccee nañ la tey wàcce nañ la duñ wax seexal nañ la mais wàcce nañ la bàyyi lum bu wet sa ruu gi dootu jog ci dëgg sa dund gi dootu génn ci mat sa melokaan yi dootu génn ci ci ci ci ci leer bu wet say cër dootu génn ci ngërëm looy yëngatootu yàlla gërëm ko barke laa ilaha illallah te lii ma lay wax da nga tëdd yow yàlla wan la ne ngërmande li dëgg la man njàmme daaru maa la ko wax waxantuhuma ko dëgg la tey laa doon xaar gërëm nañ la ci bisu gàmmu gii tey yow yow wàccee nañ la bu wér suñ doon seexal dañ naan seexal nañ la waaye seexi Serigne Touba yëpp a dem nii moo tax wala ñooy seexal seexi seex Moussa yëpp nii li may wax ni 88 la Cheikh Moussa toog ne li ma seexal ëpp na junne làmmiñu Cheikh Moussa sama nopp te la mu naa ko dëgg la 88 seex yëpp nii liñ ci xam matul ñeent wala juróom kon ana junne ba te billaahi wallaahi tallaahi suma liste bi liste bi ma yor tey man naa cee wax quarante seex yoo xam ne ñu ngi biir senegal de dund ta kenn gisul leen daal te billaahi wallaahi tallaahi kenn ku ci ne dem naa sa bis nga xam ay taalibe ma yëkkati la laa ilaha illallah ba bët set niil nga tabax nga jàkk sa kër ñemeetu laa wax laa ilaha illallah ngir àdduna mën naa cee wax ñu bëri dama leen suturaal mais xam naa ci ñu bëri billaa wallaay gis nga borom daal ci ronam laa juddoo parce que moo ma teg ci tànkam tuddee ma boppam seexal ma ci bis bi seexal duñ ko def ko xamut seexal duñ ko def ko gëlëm seexal biñ ko def ku matut seexal biñ ko def ku suufe seexal biñ ko def ku lëndëm te bis boobu la ma tuddee boppam seexal ma loolu laa am ci Cheikh Moussa yaru ci kerkeraanam màggaat ci ronam nangulaat ko ci siru te kenn nangulu ko soixante-dix-huit laa xam yàlla billahi wallahi tallaay ba quatre-vingt-deux Cheikh Moussa door a laal jëm jëmmal xam-xam bi da ko waxee ci biti man sang Cheikh Moussa Diagne dama joxe app boobu nag rek. 78. ci la laal secret la ilaha illallah te ko la dana la la Cheikh Moussa bobo woote hmm. te boba nan na yalla ba jexal ko. ci ron Cheikh Moussa barke borom he la ilaha illallah. tay Cheikh Rafaal ah mam motax tax mu ne li ëllëg kum ci ko ci am lu la demal lagi dikkoon jaamme Serin tu mana ah Syekh Cheikh syekh ma seexalee dañ fàddu ba mu des njàmm Cheikh Moussa ne su ma woote bii su njaajeen wuy si wutoon addina yëpp wuy si ma xam ne oote bi dana niit waaye soo addina yëpp bañoon njaajeen wuy si makam le ne dana du niit njaajeen ngeen dal waaw taw daaru la Cheikh Moussa toog ne xoolal leen ma Abdou Diagne ba ëllëg ëllëg ma ngi waaw ñoo wéet ma ne ko Cheikh Moussa ne na yaa de Ibra Fallam mu ne ma waaw ma ne ko waa Baye noo def ak alwaladu siru abi doom mooy mbootu Baye mu ne ma ne ko kon Cheikh Ibrahima Fall ambulance nga mu ne ma ne ko maay sa siru te ëllëg ñëpp dañ xam ne maay Cheikh Fall te billaay wallaay tallaahi man balaa maay gane si jamono diisoo naa ak Cheikh Rafaan li maay diisoo moom ci xaqiqa ba pare bam nangu ne am naa ko ma door a gane si jamono su Cheikh Rafaan bañoon du ma ñëw wala su may ñëw roñ sama bagage parce que xam naa ne du ma fi fekk ahlul badar mooy dëgg rafaqani ahlul badar al islaama wa saxsaan fujaara wa salaama lii la Bamba bind kon ahlul badar sant leen yàlla waxantuma ko nag pour ngeen gëm ma bu ma kenn gëm waaw waaw yéen itam yéen a ma doy kon lañ caay def lañ caay boole mooy nañ delluwaat ci liñ séq laa ilaha illallah lu ci yàlla teg wax dëxoo kon nañ wax dëxoo ñun suñ dund bi na doon wax dëxoo bu wet nañ nekk ci jàmm nañ nekk ci jàmm nañ nekk ci jàmm gis nga yaaram li may wax mu ngi ñëw de gis nga des na tuuti ci kanam talibé sang Cheikh Moussa Diagne la ñu poñe la ne la mhm. sa sanga fi wax lu kenn waxu ta mo ne luma way laaj ma tontu la ah su ge foo jëm su fekkee xamo jàmm soy dugg ci xam-xam rafet parce que xam-xam jàmm kon am leen jàmm man lo rek la soxla ci soxla soxlawuma dara am leen jàmm ku xif xas ku mar foko ko maré rukuma mare ku rafle rukk ma ku ñàkk rukk ma te xam ne maa matalut waaye lépp man la war ci yéen billaay wallaay tallaay li may wax nii lépp man la war ci parce que yéen a ma jox seen bopp te bàyyee ma seen bopp kon xamatu leen kon lépp man la man la da ngeen baax rek mais ku rafle man nga war a xas ku ñàkk man nga war a andil problème te dama koy nangu parce que maa nangul maa leen bu wépp waaye nag sant yàlla kenn rusu ci kenn xamu ci jafe-jafe yàlla defal na ñëpp sutura bu wér defal na ñëpp it fajog aajo badri yi mën naa tiit de ci soxla waaye du daanu de laa ilaha illallah su tiitee ba tëdd naan lii du sotti dama koy ree sax su ne xujj ci lalam bi ba ne lii du sotti de kanam na du mën a nelaw dama koy tiim na koy ñàkk jop yow doo nelaw ba xàndoor te xam ne lii day mat wala su matutit ku gaddu problème be jëm ci ci yow do ak lum ko organiser organiser lum ko halu halu halu xaalu balaam lay djub ma rof ci xolam bo mom sali wa legui nak ki ñew bëgg lay andil problème ma rof ci xolam bi sali muy jam waaw naka yow mi nga xamne ma la mom bay am leen jàmm ku bëgg xam-xam géeju xam-xam bes ci xam-xam amal jam. man ma len ko wax ku bëgg a doon samsu sumoosi amal jàmm ku a dem ëllëg ba nekk rax suru aussi taxaw ci digg bopp yi jiite leen amal jàmm man loolu rek laa leen di wax su ngeen amee jàmm rek desee na leen ma dara dara dara dara dara mooy dëgg ndax dem naa ba toll fi yónnent mu Muhammad toll woon ak ak àdduna de romb xeer yi sax ñu naan sang laal ñu laal ñu moo tax ndeysaan su may dem ànd ba damay am problème billaay wallaay tàllaay lu ma romb nga bëgg ma ziar su ma su ma ko defee rek ba ziar la rek su ma xel axul ba daan lay def ma ne lii su fekkoon ne ndeysaan fa may dem neex naay dem damaa am lu baral ñu topp ma caméra. Mhm. dëgg la de. barke laa ilaha illallah. lépp may lekk ndeysaan. jërëjëf. jërëjëf Diagne déggee nañ. yal yàlla def jàmm ak yàlla def mu cëkk tiraan yal yàlla def kowe ci barke laa ilaha waaw portable bi dafa wadd